dal leen ak jàmm ci seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw. asalaamaaleykum. noo ngi siyaare mboolem kilifa yi fi teew. ginnaaw bi nu ñaanalee Serigne Touba Serigne Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg lool te ànd naa li mu naalal diine naa la ko lislaam mu àggale ko sagoom te nu ànd koog moom téeméer ak yu tàmbali tey. di nuyu bu baax Serigne Moustapha Mbacke mi toog di imam. jox ko wàccuwaayam siyaare bu baax Serigne Mame Mor Mbacke monsieur Mamadou Mountakha ñu yëkkati nag ci turu Serigne Fallou Mbacke mii mu Serigne Moussa moom Serigne Modou moom mi nga xam ni tey cëru baay bi moom la ko soxna si jox mu may soxna biisu jagana na Ousmane Ndiaye di nuyu bu baax Serigne Pape Ndiaye ak Serigne Idrissa mi mu àndal léegi bi nga nekkee ci kàddu yi di leeral sëñ Basiir mii daf ma ni booba xale la waaye ñoom xam ñi xàmmee naa leen kër seen son ko kon loolu dafay dëggal wax ji Serigne Fall wax ñu nag mi ngi sant mbokki boppam yëpp nee na njaboot sëñ Basiiru gi nee kenn desu booba moog Cheikh Moustapha ay xarit lan Serigne Moustapha moom Serigne Saliou daan ñëw seen kër nee na ba moom mi Serigne Moustapha Serigne Moustapha Saliou moo ko yóbbu moom mii ci Serigne Souhaïbou Mbacké ak Serigne Mame Balla Bousso mu jébbalu foofu te bi mu jébbaloo mooy kii sëriñ bi daf ko ko wax sëriñ Abdul Ahad dañuy nekk xalifa ba jël kaamil daal di bees dem ci jumaa ji ci xabru mu jàng fa kaamil bi yëpp ba mu jeex bismillah ñëw indi kaamil bi ak dàll yi mu solo jébbal ko sëriñ soin bu mag seex soin bu mag bàyyam moom mi mi leen jur ñoom ñaar ñëw ni ko siyaare si mu jël kaamil bi jébbal ko ko dàll yee nag mu bàyyi ko fa ñu ko bàyyee naa loolu yi li mu teewee bi mu génnee àdduna miraas saam saam kaamil bi si ci moom mii moo tax ma ko tey may bàyyi xale bi xale yi seen baay seen baay ngi tudd Mamadou Moustapha Ndiaye daal di ko seex sooy bu may na fi ay kër bare ba su bare waaye mënu ko rek nekk na fi tey maire moom mii moo ko mayoon am na décret xam xam nga lool lii lépp Serigne Touba Serigne Touba la jeex na loolu rek la nee na mi ngi sant mi ngi ñaan di ñaan ci sëñ barke